Al Madina Travel Salum ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhamed Muntaqa Sakho ñoo di may émission bu mag bi uh, hadis ji yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa wax ne lislaam ci juróom lañ ko tabax te bi di sukkandiku ci pour wane ne yëf yi jëf la Eh, juróomi bu njëkk bi mooy ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñaareel bi mooy ashhadu anna muhammadan rasulullah non boobu mooy boobu yëpp yooyu benn la boo ne dafa ne buniyal islaamu ala xamsin tabax nañ lislaam ci juróom bu njëkk bi mooy shahadati an laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah boobu mooy bu njëkk bi wa iqaami salaati mooy ñaareel bi ñetteel bi wa itaa'i zakat mooy joxe azaka wa sawmi ramadana muy woor weeru koor ah bu mujj bi ah wa xajjul bayti ah ak aj néeg bi li man istataa ilayhi sabila léegi nag mën ngaa wax ne julli jëf la kooku moom ku ne xam na ko koor jëf la ku ne xam na ko asaka jëf la ku ne xam na ko aj jëf la waaye ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu wax la ana ana ana jëf ji waaw ngëm looy wax danga koy wax gëm ko waaye it lii wane ne jëf la it mo mooy ashhadu an laa ilaha illallah dafa am ay requirements du looy wax rek gëm ko waaye dafa am ay requirements requirements yooyu pour nga matal leen foog jëf dëkk foog jëf dikk wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dafa am ay requirements te fo yooyu pour nga matal leen foog jëf dikk hmm. requirements ashhadu an la ilaha illallah ñaata leen ñeent macha allah bu njëkk bi Adja Ndioba wala ma bàyyi leen ngeen dimbalante <laughs> doo jaamu kenn ku dul yàlla doo jaamu kenn ku dul yàlla bu njëkk bi bu ñaareel bi Adja Ndioba doo ñaan doo sukkandiku si ku dul yàlla macha allah bu ñetteel bi Njaay Yaasin

dëggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp lum xabaare dëggal ko ci lépp lum xabaare ñaareel bi nga topp ko ci lépp lum digale lum digle topp ko ci lépp lum digle ñetteel bi doo jaamu yàlla si lu bi ni ko yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam wax naa sànq ne juróom-ñaar yëpp am na ñaar yu tënk ñaar yu mooy ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mooy juróom-ñaar waaye am na ñaari yëf yu ma wax sànq ne ko tënk bala maa tëj balaa ñoo julli ci ak ah, loolu loolu yëpp waaw yooyu yooyu wax naa ko mais dama boo xoolee juróom-ñaar yi yëpp am na ñaar yu ko mooy lépp looy def nga def ko ngir rek mooy ixlaas mal looy def nga def ko te yàlla rek tax ñaareel bi looy def nga defe ko ni ko ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ñaar yi ñoo tënk juróom requirements yëpp mooy al ixlaasu wal mutabaatu hmm? al ixlaasu wal juróom-ñaar yëpp kat ñu ngi foofu maanaam ñeenti yi ashhadu an laa ilaha illallah yëpp mi ngi ci ixlaas ñetti ashhadu anna muhammadan rasulullah yëpp ñu ngi ci mutabaatu Hmm? ixlaas ci ngay jeexee ci yàlla de mutaabaatu ci ngay nekkee xaaj ci yonent bi sallallahu sallam ndax ibrahima wax na ci suratu ibrahima yàlla nettali ko faman tabi'ani ku ma topp fa innahu minni ci man la bokk yonentu ne salmaan mi dëkk faris minna ci ñun la bokk ahlal bayti ci ahlal bayti la bokk lu ko ko may topp moo tax ibnu ataillahi sakandari wax ci eh, wax ci eh, wax ne al al mutabaatu tajcaluka juz'an min topp mooy tax nga nekk xaaj ci ki ngay topp yal nañ nekk xaaj ci yonent bi sallallahu alayhi wa al ixlaas wal mutaaba'a al mooy sellal sincérité sellal jaamu gi ngir yàlla al mutaaba'atu mooy topp yonent maanaam ñaari mooy looy def rek yàlla tax looy def nga defee ko ni ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def nga topp ca yonent bi sallallahu Hmm? maanaam jëf jooy jëf na sell ngir yàlla jëf jooy jëf na nga topp yonent bi na nga ko defee nim ko jàngale ñaar yooyu ñoo tënk juróom booy booy booy booy booy yaatal nga ñeenti yi nga xam ne ñoom la yàlla moom ci ñoom la ashhadu an la ilaha illallah moom mooy doo jaamu kudut yàlla doo ñaan doo sukkandiku ci kudut yàlla kenn du la yoonalal kudut yàlla ñenteel bi bëgg yàlla ak bëgg lépp bëgg ak képp ku mu bëgg macha allah yonentu muhammadu rasulullah nga dëggal ko ci lépp lum xabaare topp ko ci lépp lum digle doo jaamoo yàlla lu ci nim jàngale lu nim jàngale lu dul ci nim jàngale ndax yonent wax na ne képp ku indi ci suñ mbir mi lu ci bokkut ñu delloo la ko ah, sooy sooy tink juróom-ñaar yooyu sooy tënk nag nga ne al ixlaas wal mutabaa ñooy muqtadayaatu laa ilaha illallah ak muhammadun rasulullah sellalal yàlla jaamu ma umiru illa li yabudullaha muxlisina lahuddin hmm? mooy looy def rek yàlla rek tax waaye nooy defit nga defee ko ni ko yonantu sallallahu alayhi wasallam jàngale wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi iznillah looy def yàlla tax nooy def nang ko defee ni ko yonantu jàngale yàlla tax mooy al ixlaas jaamu gi te yàlla rek tax mooy mm. sincérité pour yàlla tabaraka wa taala mooy mutaabaa al mutaabaatu al mutaabaatu mm, boo doon mooy topp topp mm. na de bu fekkoon ne lii fekkoon ne lii rek lañ dajale mu doy te xam naa ne da dul teewlu matn ibn Ashir bi ñuy dugal waaye li may wax nii ci wolof mu ngi ci commentaire yooyu ma dugal ci groupe bi xaw ma dégg la ngeen koom déet hmm? waaw yii nii mi ngi ci bi ñuy jàng qawaidul islaami xamsun waajibaat wa hiya shahaadataani shartul baaqiyaat fi muy jàngale ponki lislaam yi wax nañ ci eh, muqtadayaat yi hmm? te yooyu nag yu am solo la yu sew sewaan yi ñooy xam-xam hmm. waaw yu sew sewaan yi ñoo ñooy tax nga dégg li nga foog ne dégg nga ko ndax hmm. nga dégg li nga foog ne dégg nga ko xam nga booy jàng defe naa darsu bi ñu jàng démb dugal naa ko mi ngi jàngale farata ne farata ñaari xaaj la fardu kifaaya ak fardu ayn du loolu wax mm-hmm. farata ñaari xaaj la fardu kifaaya ak fardu ayn léegi nag su fekkee ne téere bi rek nga ñëw jàng yow loo rek ngay xam su fekkee translation bi rek nga ñëw jàng yow loo rek ngay xam waaye suñ la ko firilee nag danañ la wax ne ah farata buñ ne ñaari xaaj la fardu kifaaya ak fardu ayn du farata ba de waaye farata ba ci ictibaar ki koy jëf maanaam farata suñ xoolee kiy def farata bi lay nekk fardu kifaaya ak fardu ayn waaye farata bi ci boppam moom buñ ko xoolee dafay nekk fard muayyan ak fardu mubham fardu buñ xoolee ci waxtu wiñ koy def ci lay nekk fardu mu dayyaq ak fardu mu wasaa bu ngeen dégloo darsu démb bi da ngeen ci déglu loolu xaw ma déglu ngeen ko ndeet ah, kon baax na dinaa ko bàyyee dugal ci groupe bi naa def <laughs> Ah, fard buñ xoolee kii def farata bi dañuy dafay nekk fard eh, jëmm ak fard doy walla nga ne individu fard ak communal fard farata boo xam ne ci ku nekk la nekk farata ak farata boo xam ne ci communauté bi yëpp la nekk farata farata bi nga xam ne ci ku nekk la nekk farata mooy farata bi la kenn mënta defal lu mel ni julli kenn mën la ko defal farata bi nga xam ne ci communauté bi la nekk farata maanaam euh, lu mel ni xettaliku kuy lapp suñ gisee benn waaye ñu ne ma nga ne la di lab ci ndox mi képp koo xam ne gis nga ne ma ngay nga mën koo xettali rek faratal la ci yow suñ ko seetaanee mu lab ñi mën a fay mën koo xettali yépp ñu am bàkkaar te xam ko te xam maanaam ñi nga xam ne xam nañ ne waa jaa ngi lab te am nañu ña nga fa mën nañ koo xettali buñ ko xettaliwul ñëpp ay am bàkkaar su ko ca kenn xettalee nag bàkkaar ba wàcc ñëpp farata ba wala ñu ne dafa am waay ju dee jullee ko ak toppatoo ko farata la ci ñi ko xam ci communauté bi yépp te mën ko suñ ko seetaanee ñi ko xam te mën koo toppatoo yépp ay am bàkkaar loolay farata de communion farata in regard to its doer farata in regard to fard itself nag moom it ñaari xaaj la mooy farata bu ñu ràññale ak farata bu ñu lëmal farata bu ñu ràññele ak farata bu ñu lëmal xam nga xam nga julli juróom tisbaar farata bu ñu ràññele la n'est-ce tisbaar gi daf laa war euh, mooy moom mooy mooy li la war ca waxtu woowa yaa ngi dégg soo demoon tey julli leneen lu dul tisbaar googa tisbaar ga war ga du la wàcc parce que lu ñu ràññele la Hmm? boo demoon tey julli ñeenti rakk yéene ci yéene ko def ko sunna pour duñu ne ñu ne nga ne ah ñeenti rakk ñeenti rakk la rek tisbaar boo wàccagul la ba léegi ndax farata bu ñu ràññale la hmm? maanaam farata buñ xam ni ko julli tisbaar ni julli takkusaan ni ko julli timis ni ko aj màkk loolu farata buñ xam la moom rek ngay def mu mu jeex farata buñ lëmal nag mooy mooy lu mel ni kafaara waa ji dafa dog ci bëccëgu weeru koor te tayi ko te ko daf ko tayi wala mu seq ak soxnaam dara ci bëccëgu weeru koor non seulement dafa war a fay waaye dafa war a kafaara léegi nag bu kafaara lan ak lan la nan la ñuy kafaara euh, kafaara weeru koor kat moo xam ci yéen nu ñuy kafaara lu ñuy koo xam ne dafa dafa dagg ci weeru koor te ko te maanaam dafa tayi dagg ci weeru koor buy kafaara nu koy defee. te fay te dafay fay ba pare kafaara nu mu koy waaw léegi bu fayee ba pare kafa gi nu mu koy defee. bokkul ak ah, dafay woor deux mois. dafay woor mu leel ñaata ñaata miskin juróom benn fukki miskin juróom benn fukki miskin wala mu goreel jaam loolu loolu farata bu ñu leeralut xam nga ki war a kafaara doo ko wax ne ko goreel jaam nga war a def doo ko wax ne ko léeg juróom benn fukki miskin nga war a def doo ko wax ne ko woor ñaari weer nga war a def danga naan ko benn ci ñetti ngay def léegi bum ca def nag def na farata ba xam nga kon léegi moo lan ngay wax farata bi dañ ko lëmal ndax farata bi benn la ci ñetti yi ah, yaa ngi dégg looluy farata bu ñu lëmal mooy farata boo xam ne ci ay mbir la nekk mënoo wax ne bii rek la ndax bu mënoo wax ne du ndax bu defee boobu yeneen yi wàcc ko bu deful benn mu mel ni yëpp a ko war maanaam benn ci yooyu ko war waaye mënoo wax ne bii la seetlu nga maanaam mooy farata boo xam ne dañ koo lëmal bokkul ak farata bu ñu ràññale farata bu ñu ràññale mu mel ni julli bu jotee julli tisbaar bu jotee dooni julli tisbaar ak takkusaan ñoo la war déedéet bi jot rek moo la war mm-hmm. dooni mën ngaa julli ñaari rakk wala nga julli ñeenti rakk wala nga julli juróom njëri ñeent rek ñoo la war farata boobu dañ ko mooy farata bu ñu ràññale maanaam farata in regard to it to, farata itself ñaari xaaj la farata bu ñu leeral ak bu ñu lëndëmal wala farata bu ñu ràññale ak bu ñu lëmal mm-hmm. lu am solo laa leen di wax farata nag in regard to its time farata bu fekkee dañoo xool waxtu wiñ koy def boobaa it ñaari xaaj la farata buñ xoolee ci waxtu wiñ koy def ñaari xaaj la mooy farata bu xatal waxtoom ak farata bu ñu yaatal waxtoom ban farata ngeen xam ci farata boo xam ne dañoo yaatal waxtoom ak lan nga nan la ñuy xamee dañoo yaatal waxtu ban farata ngeen xam ci farata bu ñu xatal waxtu ak nan ngeen xamee dañu xatal waxtu ah kan moo bëgg chocolat bi ma kan moo bëgg kan moo bëgg ma may ko chocolat déet man maanaam loolu What do mean by that? moo tax ma laajte ko bëgg a xam na xam ngeen ko. any farata any farata. waaw farata rek farata maanaam farata yëpp farata yi ci adduna bi yëpp ñaari xaaj lañ. julli gee. bu julli gee aha. dafa yaatu. dafa yaatu. ba fajar. ok ban moo xat. timis. dafa xat. ah nu mu xatee. ah dafa gaaw a passé c'est-à-dire tey ji yow timis bu jotee nga julli ko ci premier minute bi timis gi baax na. Mm-hmm. boo ko julee ci deuxième minute bi timis gi baax na. Mm-hmm. boo ko jullee ci cinquième minute bi timis gi baax na. kon xatut. lu xat mooy lan mooy loo xam ne ci waxtu wuñ jot moom rek nga ca mën a def boo ko ca defut weesu mënoo caa def mënoo koo def mook leneen ci jaam waxaat ko weeru koor weeru koor is very non non boo ne weeru koor rek bàyyil timis boone ne weeru koor ma ne gonga ba nga tuddee timis rek génn nga ci génn nga ci affaire bi timisu weeru koor ak timisu eh, barax loo yem waaw mm. ba nga ne weeru thank you looloy farata bu ñu xatal xam nga gaye ak timis ak eh, yeneen heure julli bi nga jullee gee gee ñaata rakk la ñeenti rakk gannaaw gee mënoo cee naafila yeneen ñeenti rakk wala fukk wala lu ko ëpp te waxtu gee wi du jeex kon gee wi dafa yaatu lu tax ndax mën nga caa def nature jaamu yàlla ga muy julli farata gi ba pare def nature jaamu yàlla ga muy julli te fekk naafila la mhm. weeru koor nag diggante fajar ba bi jant bi di so kooru farata rekk nga ci mën a def minute boo ca bàyyi mu yàqu ndax mën nga naafile na mën nga koor kooru naafile ci weeru koor kon waxtu wi dafa xat ndax waxtu wi farata wi rekk nga ci mën a def du ko ëpp du ko manqué li lay ne farata wi rek nga ci mën a def mooy mënoo def naafile ci nature jaamu googa ci même waxtu wi yeneen yeneen yu yaatu yi li lay wan ne yaatu na mooy man ngaa def naafile ci waxtu wa naafile goo xam natiru jaamu gi la te waxtu wa jeexagut bi nga jullee tisbaar ba pare balaa tisbaar balaa waxtu tisbaar bi di jeex mën nga cee naafile naafile ak julli bi nga jullee timis balaa waxtu timis bi di jeex mën nga cee naafile naafile ak julli donte timis dañuy wax ne dafa xat waaye li wér mooy waxtu timis dem na ba gee loolu mooy li wér la lay gën a siiw nag defe waxtaan naa ko fi bi ñuy jàng laxdar yu la gën a siiw ci madhab bi waaye li gën a wér mooy timis fee gee jotu timis jeexagut muxtaar mi wax ma daruri waaw li gën a siiw nag mooy timis temps bi nga koy muxtaar bi mooy kemtalaayu temps bi nga koy préparé rek la ak julli ko maanaam ki fangu sangu farata war temps bi muy sangu dégg nga bu fekkee cinq minutes la sangu bi di jël julli gi di jël dix minutes euh, cinq minutes kon mën nañoo jàpp ne temps muxtaaram dix minutes la ki nga xam ne jàpp rek ko war temps bi muy jàpp ñaari minutes la temps bi muy julli juróom minutes la ñu ne kon juróom ñaari minutes mooy muxtaaram ainsi de suite ainsi de suite waaye nag li gën a wér nag mooy gën naa yaatu noonu kon li ma bëgg a joxe rek moo li ma bëgg a leeral foofu rek mooy suñ ne la farata ñaari xaaj la da nga naan ñaari xaaj la in regard what bu dee fa bu dee ci farata ci boppam dafa am farata bu ñu ràññale ak farata bu lamal bu dee farata ci ki koy def ñaari xaaj la farata boo xam ne ki koy def képp moom moom moom la war kenn mënu ko koo defal ak farata boo xam ne communauté bi yëpp la war bu ko ci ñenn defee mu wàcc ña ca Hmm. muy fardu ayn ak fardu kifaaya de farata in regard to its time dafa am fard bu ñu yaatal waxtoom ak fard bu ñu xatal waxtoom hmm? yaa ngi dégg de ñu yaatal waxtoom mooy fard ku lu mel ni julli tisbaar mën nga koy julli ci njëlbeenu waxtu bi mën ngaa bàyyi ba ci digg waxtu bi man ngaa julli tisbaar ba pare jaamu ca yàlla jaamu yàlla gën a yàlla ak julli fartu gi ñuy xatal waxtam nag mooy farata farata boo xam ne waxtu wa farata ba rek nga ci mën a def ah ban misaal lañ joxe léegi ah weeru koor léegi nag ki weeru koor jigéen ji am na ngànt ci koor gi am fukki fan wala juróomi fan yum mu war a fay farataay fay googu farata bu ñu yaatal la wala farata bu ñu xatal la. farata bu allah farata bu ñu yaatal la ah xaaral ma xool seen degré muus fu mu toll exemple <laughs> nan lay xamee ne ndax wala da nga nan nga nan mooy wane ne farata bu ñu yaatal la. parce allah. am nga at pour fay ko bu la neexee ñaari fan ci shawal ñetti fan ci dul xaada ba mooy yaa ngi dégg loolu mooy aj moom farata buñ xatal la wala farata buñ yaatal yaatal la buñ yaatal la ndax lan soo ko amee nga koy def saa yoo ko nga koy def te loolu mooy maanaam loolu weeru koor saa yoo ko mënee nga koy def de déedéet. ah. ah. weeru ah. ki nga xam ne ni moom mënta woor te dafa feebar feebar bu dul wér. bu ah. ko war. ah lu ko war. moo ko war waaye kon woor waratu ko weeru koor waratu ko. si bu wéree kay day woor. bu fekkee dafa feebar feebar bu dul wér wala mu màgget déedéet du kafaara kay dafay lele mm. dafa am leneen la ko war mm. lele ko war waaye kon woor waratu ko lele ko war mm. te lele boobu war ko su amul dara nag <laughs> kon jeex na ak tamit bu amul dara waragut la léegi nag bula waree ba nga commencé ko dafa xat wala dafa yaatu ndax man tey jii ñun par exemple le 6 juin lañ fiy jógee dem aji ndax menn at mi mën naa cee aj ñaari yoon ndax mën naa cee aj aju farata de aj ci aju naafila kon buñ ko xoolee ci côté boobu aj kon dafa xat hmm? Hmm? buñ ko xoolee ci côté boobu dafa xat ndax jamono ji koy def moom rek nga ci mën a def hmm. macha allah ngeen muus de Ah, est-ce que leen ba noppi sax alhamdulilah yal yàlla yombal yëpp yàlla doole xam yooyu dafa am solo waaye eh, ni ni fara liñ wax ci farata it nag boo demee ci ibnu Ashir dana la wax ne wa yashmulul mandubu zunnatan bi dayn moo ne sunna it dafa am sunna soo xam ne sunna si ayn la am sunna si kifaaya am na sunna boo xam ne yow rek lañ ko teg maanaam ku nekk yaa ko mën a defal sa bopp am sunna boo xam ne ñëpp lañ ko teg bu ko ñenn ñu defee mu wàcce ñi des maanaam loolu lay wax ne nii farata nekkee ñaari xaaj noonu la sunna nekkee ñaari xaaj any idea kan moom idea ci ñaari xaaj sunna boo xam ne ñëpp la war ak sunna boo xam ne yow rek la war bon yow rek lañ ko togg nga wax doo wax war fii yow rek lañ ko togg parce que at juróom lislaam juróomi atte ñoo ci am maanaam bu ñu juróomi atte ñoo ci am yoo xam ne atte yuñ togg jaam bi la mooy farata mooy mandóob mooy sunna ci usul luñ sopp luñ sib lu xaraam lu dagan farata luñ sopp luñ sib lu xaraam lu dagan dama koy répété pour ngeen bind ko farata luñ sopp luñ sib lu xaraam lu dagan luñ digle ca dogu ta ca dogu ca mooy farata luñ digle te dogu wuñ ca mooy luñ sopp luñ tere te dogu ca mooy lu xaraam luñ tere te ca mooy luñ sip lu ñu digle wuñ tere wuñ ko mooy lu dagan xaw ma dégg ngeen maam déet <laughs> luñ digle te dogu ca Uh, a, a command restrict. ok. mooy lu mooy farata. a command without strictness. with lower uh, without strictness mooy lu ñu sopp. Mm? interdiction ba lu ñu lu ñu forbi uh, what forbi what is, what is forbidden with strictness mooy lu haram without strictness mooy lu ñu sipp. lu dagan mooy loo xam ne may nañ la nga def ko may nañ la nga bàyyi koo def ci misaal luñ dogu ca lu ñu digalee te dogu ca mooy lu mel ni julli tisbaar mbaa tàkkusaan mbaa timis loo xam ne digle nañ ko waaye doguwuñ ca mooy lu mel ni fay nange kan moo xam luy fay nange ci yéen julli fay nange Uh-huh. julli yoor ah, yow yow wala fala yar fay nange loolu mooy luñ digle te doguwuñ ca luñ tere te dogu ca mooy lu xaraam lu mel ni naan sàngara luñ tere te doguwuñ ca mooy luñ sib lu mel ni jàngal alxuraan ci rukkoo ku rukkoo du jàng alxuraan dafay sàbbal yàlla hmm. Aliou nee na yonentu tere na ñuy jàng alxuraan ci rukkoo ci rukkoo doo jàng alxuraan dañ ko sib da ngay wax subhaana rabbil azimi wa bihamdihi ngay wax soo doo jàng alxuraan wax subhaana rabbil ala wa bihamdihi wala nga ñaan mbaa nga boole ñaari doo ma ndax tari waaye ja bàyyi jàng rek jàng <laughs> tari mooy loo mokal ndax mun nga faa jàng te fekk la ngay jàng mokkaloo ko <laughs> loo xam ne nag may nañ la def gi may nañ la tere gi may astaghfirullah may nañ la def gi may nañ la bàyyi gi mooy lu dagan lu mel ni lekk ak naan waaw ak nelaw pare <laughs> naan nga gëmmintu <laughs> xam nga nelaw moom xaw ma ndax yaa koy defam moo lay def <laughs> <laughs> Euh, nelaw moom dafa mel ni hmm. boo moytuwul luñ la luñ la jëf xam nga bu xam nga sànq bi ñuy wax wax naa ne li ñu attey attey mooy attey yiñ la togg attey yiñ la togg laa ne yooyu mooy juróom la dafa am atte da léeg nag moo tax dafay wax ci njëlbeenu bunt bi mooy Ibnu Ashir dafay wax ne atte mooy mooy xitaab bu yàlla di wax ak speech yàlla ci mukallaf ci jëfi mukallaf bi fi mu nekkee mukallaf c'est un technique boobu bu ngeen ko jàppee baax na su ngeen ko waaye ma expliquer leen ko rek maanaam euh, atte sharia dégg nga nee na mooy yàlla euh, waxante bi muy waxante wax gi muy wax di adressé jëfu mukallaf bi ci fi mukallaf bi nekkee mukallaf Hmm? ci fi mukallaf ci jëfi mukallaf bi in that he is responsible moom mukallaf bi parce que yàlla dana wax te fekk waxul ci ci yàlla lay wax moom ci boppam foofu boo foofu atte atte togg jëf dugg duggut fa ndax yàlla buy wax ci boppam di tagg boppam alhamdulilahi rabbil alamin kooku waxul ci mbindeef hmm. yàlla dana wax ci mbindeef yi fekk waxul ci seeni jëf yàlla nee na wa fi samaai risqukum wa ma tuwaaduna ci asamaan la seen wërsëg nekk loolu ci mu ngi wax ci mbindeef yi waaye waxul suñ jëf ndax suñu wërsëg jëfama du jëf du suñ jëf yàlla dana wax ci jëfi mbindeef bi te fekk jëf jooja concerné wut mbindeef bi mënul ca dara togguñ ko ca dara mooy fi yàlla di wax ne wallahu xalaqakum yàllaa leen bind wa ma ak li ngeen di jëf foofu yàlla mi ngi wax waaye waxant waxul ak ñun ci fi mu ñu toggee jëf fan la yàlla di wax ak ñun ci fi ñu toggee jëf mooy yàlla fi mu ne aqimu salaa taxawal leen julli wax jooja wax yàlla jooja mooy atte mooy yàlla buy adressé mukallaf jëfi mukallaf bi ci fi mukallaf bi nekkee responsable yooyu nag dafa am axkaam yoo xam ne yim ko togg la ñu ne yooyu juróom la mooy farata dégg nga euh, ak luñ sopp lu xaram ak luñ sip ak lu dagan lu dagan nag ñeneen dañ ko mottalee yëf yi rek waaye foofu yàlla toggut fa kenn dara ndax ñaari côté yëpp la la may may na la nga bañ a lekk ceebu jën may na la lekk ceebu ginaar hmm? soo lekkee ceebu ginaar doo am bàkkaar soo ko bàyyee doo am bàkkaar léegi nag yooyu ma jox leen ko ci beneen misaal bu gën a leer farata mooy loo xam ne soo ko defee yàlla yool la soo ko deful mu duma la wala da ngay nga yeeyoo duma am Mm-hmm. looluy farata farata mooy loo xam ne soo ko defee mm-hmm. yàlla yool la mooy yàlla fay la mm-hmm. soo ko defut mu duma la walla nga yelloo dumaam ah, waaw soo ko defut yelloo nga duma mu duma la boo ko waxee mooy mën naa am da nga ne il faut mu duma la te bu ko neexee baal la waxta da nga naan mu duma la wala yelloo nga farata mooy loo xam ne soo ko defee mu mu fay la yool yool la buñ ne yool mooy fay yiw soo ko deful yelloo duma looluy farata lu xaraam mooy loo xam ne mooy mooy mooy mooy mooy opposite farata mooy loo xam ne soo ko bàyyee ñu fayla la yool la soo ko defee yelloo duma Hmm? farata mooy loo xam ne soo ko defee am yool soo ko defut yelloo duma lu mooy loo xam ne soo ko defut am yool soo ko defee yelloo duma hmm? luñ sopp mooy rakki mooy rakki farata mooy loo xam ne soo ko defee am yool soo ko defut ken dula duma luñ sip mooy rakki xaraam mooy loo xam ne soo ko bàyyee am bàyyee am yool soo ko defe kenn du la duma Hmm? lu dagan mooy loo xam ne yool nekkul ca def ga duma nekkut ca yool nekkul ca baga duma nekkut ca lu garaaw laa leen di wax <laughs> suñ benn kii moo daan wax loolu lu garaaw laa leen di wax laa hmm. loolu mooy loolu mooy Ah, ahkaam taklifiya waaye nag ahkaam yi nga xam ne ñoom la yàlla togg jàmm bi dafa am yum juróom yum teg yuñ leen di ràññee dafa am juróom yoo xam ne dafa leen def màndarga ñoom la ñuy tuddee al ahkaam al watiya al ahkaam al watiya mooy atte yiñ tëral yoo xam ne yàlla def leen tëral ñu nekk benn ñu nekk sabab wala ñu nekk charte wala ñu nekk maanic wala sixa wala fasaad sabab mooy cause charte mooy précondition wala précondition wala condition hmm? maanic mooy preventer ah, mooy luy ajitere tere sixa mooy wér fasaad mooy yàqu Hmm? maanaam atte mu atte yi atte yoo gis xamal ne juróom yi ñu ngi ca wet ga sabab charte sabab mooy cause charte condition maani aji tere wér fasaad yàqu hmm? xam nga jant bi so sabab la ci timis war maanaam yàlla dafa def jant bi so pour muy sababu waruk timis am déet mm-hmm. hmm? xam nga leer am déet mm-hmm. charte mooy loo xam ne su amut jëf am waaye ak amam taxut jëf am taxut jëf ñàkk waaye loolu dafa technique nag waaye loolu mooy sart mooy condition charte hmm? mooy loo xam ne su amut su ñàkkee ñàkk am amam mag du waral ñàkk du waral am <laughs> charte mooy loo xam ne su su ñàkkee ñàkk am ak amam nag du waral am du waral ñàkk charte mooy loo xam ne su amee su ah, su ñàkkee ñàkk am ah. ak amam nag du waral am du waral ñàkk okay. ma ma ma ma ma wala laab charte la ci julli wala du ci charte. kon su laab amut julli amut. amut uh-huh. waa laab am dana tax julli am. déedéet ah, d'accord. ko maanaam ak amam du tax ñàkk am. Mm. du tax am am. waaye su amut moom ñàkk rek ay am. Mm-hmm. maanaam su boo jullee te jàppoo julli ga baaxut. waaye jàpp ba julli taxut julli ga baax mm-hmm. ndax nit mën naa jàpp julli ba pare def leneen lu yàq julli ga lu bokkul ak mm-hmm. jàpp la mën naa jàpp ba pare def yaramu neen julli mën naa jàpp ba pare julli ko neex mën naa jàpp ba pare di julli jàngul fatiha mën naa jàpp ba pare di julli bàyyi ponk te tayu ko am déet mm-hmm. moo tax ñu ne condi ah, charte mooy loo xam ne su ñàkkee ñàkk am waaye ak amam du waral ñàkk du waral am waaw neel mooy condition rek <laughs> ah, léegi pour mu simple mooy condition lu misaal mi mooy euh, laab charte la ci julli wér condition la ci julli wér la ci julli mooy su amul moom julli du wér mën naa am ba pare nag julli bañ a wér waaye leneen ay tax mu wéradi Hmm? moo tax ya mooy mooy kii maani mooy aji tere maani mooy aji tere julli maanaam farata li muy farat nekk farata ci yow mën naa xëy bañ a nekkati farata non seulement dootul nekk farata booy def ci waxtu wa waaye doo ko fay sax lu tax dafa am lu ko prevent loolu jigéen ñëpp xam nañ ci dara jigéen am na ay bës ci weer wi yoo xam ne du ca julli te du fay julli ya am déet <coughs> te yeneen sallallahu alayhi wasallam wax ne li dox ci suñ diggante kéeféer mooy julli ku ko bàyyi yéeféer nga léegi jigéen bi gis baaxam bàyyi julli moom yéeféer la <coughs> nooy xamee ne du yéeféer mooy la waroon di julli dafa am maaneex dafa am aji tere dafa am prevent dafa am lu ko prevent yooyu yoo am solo la <coughs> mm-hmm. Hmm? dafa am lu ko tere kii yàlla wax na ne jaam bu bu baayam dee juróom daf koy donn kii baayam dee ba pare ñëpp di donn ñu ne ko yow doo donn lu tax parce que moo rey baayam hmm. rey ga mu rey baayam wala rey gamu rey freeram mooy mooy rey googa daf koy teree doon moom hmm? du noonu loolu la ñuy wax maania maania sixa ak fasaad mooy wér ak yàqu hmm? maanaam ni ñuy xamee ne jëf ji baax na mooy li ñu wax ne noonu nga koy defee yépp bu ñu dajee ñu ne jëf ji baax na kon wàcc na la wala jëf ji baax na kon la xaar ci jëf jëm la la jëf ja di jur ci njëriñ mën nga ko am kii dafa bëgg soxna gis na kilifaay ndaw si am na ay seede jox na ko can ñu takk ko yaa ngi dégg nañ ko war a takkee kooku li ñuy wax wér sëy ba dañ naan wér na nan lañ lan la lan la wér gi di jur mooy sañ naa bànneexoo ndaw sa ndaw sa bànneexoo ko su fekkee nag condition yi teg pour sëy wér dafa manqué dañ naan sëy ba yàqu na boo yàqoo lu muy jur mooy bànneexu ga mu sañoon a def ci ndaw ndaw sañ ko def ci moom du ko mën lu tax yàqu mooy sixatu ak fasadu maanaam juróomi kondi juróomi yële foo leen fekk rek am na juróomi yée ngi dend ak ñoom al ahkaamu taklifiya juróom lañ al ahkaamul juróom lañ ahkaamu taklifiya ñooy fard ak xaraam mustahab mooy mustaxab nag bu la neex nga ne mustahab bu la neex nga ne mandu la neex nga ne sunna ci usul ñi yëpp benn la hmm? mandub ak makruh ak mubaax farata lu xaraam luñ sopp luñ sib lu dagan ci seen wet am na falan sabab shur mooy mooy alaxkaamul watiya sabab sharta aji tere wér léegi nag bi mu ñuy wax nag farata yi mu ne ñu nag farata ñaari xaaj la loolu lañ jàngoon sànq fardu kifaaya ak fardu ayn ma ne fardu kifaaya ak fardu ayn bu ñuy wax ne ñooy ñaari xaaju farata du farata ba tax ñuy wax ka koy defa tax mooy farata boo xam ne jëm yow ku nekk la war moom ci boppam ak farata boo xam ne communauté bi yëpp la war farata boo xam ne ku nekk la war moom ci boppam keneen mënu ko koo defal lu mel ni julli bi nga xam ne communauté bi yëpp la war bu ko kenn mbaa ñenn taxawee mu wàcc ñi ci des farata nag bu fekkee ne ñaari xaaj la te fekk farata ba ci boppam lañuy wax mooy farata bu ñu ràññale ak farata bu ñu lëmal farata bu ñu ràññale mooy boo xam ne xam nañ ko tisbaar xam nañ ko donc ràññale farata bu ñu mooy farata ki war a kafaara lanay farata ci moom ndax lele la wala euh, woor ñaari weer wala goreel jaam bu mu ca def rek yeneen ya wàcc ko waaye mënoo wax ne biir mooy farata ci moom ci ñett yi farata ci fekkee ci waxtu wala dafa am bu ñu xatal am bu ñu yaatal bu ñu xatal mooy farata boo xam ne ca waxtu woo moom rek nga ca mën a def mënoo caa def beneen mënoo caa def leneen tamit eh, lu lu loo xam ne nature farata ba ci naafila wala lu mel noonu lu mel ni weeru koor diggante bi jant bi fanweeri fan yi weeru koor weeru koor rek nga ci mën a woor mënoo caa woor kooruk naafila mënoo ko woor avant weeru koor dégg na nation of islam bu njëkk ñoom décembre lañ daan woor ñu ne ndax koor gi dafay tombeek été bi loolu it mënoo ko mënoo koo war gannaaw weeru koor it maanaam mënoo bàyyi ne da nga koy toxal gannaaw weeru koor loolu mooy jaamu gu ñu xatal maanaam farata guñu ñu xatal hmm? mooy farata bu xatal léegi nag fardu wax naa ne sànq li taxoon ma dugaat fii mooy bi may wax ni farata ñaari xaaj la fardu boo xam ne ñëpp la war ak fardu boo xam ne ku nekk la war mu ne it sunna yi dafa am sunna boo xam ne ci ñëpp la nekk sunna ak sunna boo xam ne ci ku nekk la nekk sunna mooy kenn mun la ko defal yow rek yaa a defal sa kan moo mën jox exemple ci sunna boo xam ne kenn mun la ko defal ay ci mu gaaw léegi tey timis gi jot fii man foog naa ne lee pour man dañuy ñëw tàggatoo rek luy sunna julli dafay wax dafay lee naafila naafila waaw jeex na naafi julli boobu sunna la boo xam ne kenn mun la ko defal loolay sunnatu ayn lan mooy sunna kifaaya nag boo xam ne bu ko kenn defee mel na ni ñëpp def nañ ko julli julli néew farata la ah, fardu kifaaya buy julli julli mbooloo imaam buy mhm. jàng. sunna boobu. waaw loolu moom loolu dañ caa dañ caa wuute waaye sunna boobu sunna ku ne la léegi nag imaam bi moo la ko wàccee waaye loolu <clears throat> borom xam-xam yi sax déggoowuñ ci waaw looloo tax ngay gis bu imaam bi ne wala daalin amin ci jàkk yu bari nga gis imaam bi noppi tuuti nit ñi di jàng am na ñoo xam ne bu imaam bi jàng saar. dañuy dañuy dañuy kii ndax bu doon loolu mën nga wax ne fa fatiha bi loolu la loolu circonstance la waaye bàyyil ma jox la beneen sunna boo xam ne moo gën a leer mooy sunna ay liqaam hmm, wala sunna ay nodd loolu nag ci jàkka june ne xaw ma dégg ngeen maam déet bu dee buñ ne bu nodd sunna la waaye New York gépp nag nodd farata la fi New York gépp buñ bàyyi woon nodd New York gépp am bàkkaar waaye jàkka ju ne nodd sunna la fa dafa am sunna yoo xam ne bu ko adduna bi yëpp bàyyee ñëpp am bàkkaar bu ko dëkk ak dëkk bu dëkk boo xam ne ni dëkk lëmmu suñ ko bàyyee ñëpp bàkk am bàkk ndax dafa bokk ci liy wax liy wane ne dëkk bi ay jullit lañu hmm. moo tax moo tax foofu am na sew-sew jàkka ju ne nodd sunna la fa dëkk bu ne nodd farata la fa léegi nag waaw bu fekkee ne nodd nañ ci benn jàkka ci dëkk bi yëpp hmm. jàkka ji ci des yëpp nodd sunna la fa léegi nag sunna soosu nag sunna kifaaya la su kenn noddee rek wàccee nañ ko ñi ci des yëpp liqaam bu ko kenn defee rek wàccee na ko ñi ci des yëpp eh, dama foogoon ne dañuy ñëw rek tàggatoo waaye def nañ cinquante minutes ñu taxaw fii ñu ngi noonu di waaje julli hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim wa